mbokk yi euh, ñu ngi fii ci euh, Touba euh, rafet rafetlu bu baax a baax seen ànd ñu nekk nag ci ñaareeli euh, journalu euh, foire euh, journalu màggal bi nga xam ne moom la ñu jagleel yi fii ci atum 2023 bi tey ji nag ñu daal di ko tàmbali ak wàllu kaaraange ndax nag lu toll ci ñeenti junni ak téeméer ak juróom-benn fukk ci ay takk der moom la police daal di indi ngir aar askan wi naka noonu seeni moomeel ñu tasaare leen nag ci euh, Touba Mbacké Diourbel euh, naka noonu euh, Bombay mu mel ni rek li mu takk der yi daal dina yokk ci lu toll ci ñetti téeméer ak juróom fukk ak ñaar suñu ko méngale ak la ñu fi indi woon niki daaw ci ay takk der tey ji nag ki nga xam ne moom moo jiite police bi fii di Ibrahima Diop doon jano ak way taskatu xibaar yi ngir dellu siwaat si liggéey bi nga xam ne def nañ ko ñeenti fan ba léegi ba ñu fi nekkee ci wàllu wàllu euh, kaaraange dañ ciy ànd ak Jéema Mbaye ngir waajal màggal Touba édition 2023 police dafa tàmbali woon ab opération ñeenti fan si weeru uba léegi sa mbir ma jàpp nañ si ay téeméeri téeméeri doomu aadama ci ay ñaawteefa police amul foofe ndax teg na loxo si neebar gu bëri. ci loolu jàpp nañu lu mat juróom-ñaar téeméer ak juróom ak juróom-ñaar ci ay nit ñetti téeméer ak juróom-ñetti fukk ak benn. ñoom lañu jébbal yoon ñoo xam ni liñ leen di toppee mooy ñaar téeméer ci ñoom ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent lu jëm ci wàllum sàcc jël alalu jaamu fukki kilo ak ñeent drogue ci lu ñeel wàllu kaaraange gi dem bekk dikk ay oto ak i ñi yóbbu leen fourrière si lu ñeel nag juróom-ñetti fukki ak matériel la maanaam ay oto yu gaa matériel rek la seen fukk ak ñaar accident corporel ay nit yu ci am gaañu gaañu ñetti nit ñoo xam ne dañ ci ñàkk seen bakkan si lu soxal nag màggal Touba gi police nationale jëmmal fii ci Touba mi ngi engage ak juróom benn loolu boo koy seetlu par rapport ak li woon daaw na lu mat fukk ak ñaar ci loolu ñoo ngi ci yokk également un dispositif électronique la de pour gën yombal. nag wàllu circulation bi di dem bekk dikk bi Touba police teg na plan tànk ba si jafe wax jëm mbay dañuy desandi ak ci janoom ak way taskatu xibaar yi moom nag daal dinay xam avancé yoo xam ne daal nañ koy sàkk noonu càmbaake la mos ñu gën a yokk seen lëkkaloo ak euh, li nga xam ne moom mooy kaaraange pour Touba ak Mbacké ko dagg en treize secteurs juróom-ñeenti poste de police avancé nit ñi bu ñu amee jafe-jafe quelque part commissariat donc dañuy jël police jegeel leen ko moo tax ñu def ay post de police ñu ngi nekk poste contrôle station MK bu Daaru Xudd route de Daaru Muxti gaar ba kër Sëriñ Abdoulaye yeneen ñaari sancu Daaru Salaam ak jàmm gën di di ku ci am loo xam ne gis nga ko te dalul wala poste de police wala poste de police avancé bu la gën a jege pour def déclaration. fii ci tubaa nag kenn ku nekk yaakaar ne euh, li nga xam ne mooy euh, di ko dégg muy loo xam ne la loo xamante ne lii euh, jafe-jafe tubaa ñu daal di ci xar seen ndax dañuy dajale ay koppar dugal suqali mu mel ni rek rawatina kontaan nañu bu baax. Euh, bu ni mel ba ñoom daal dinañ bu baax a baax seen ci li kuréel la. Touba ca kanam. mu di initiative Touba ci la kilifay murid fas yéene surtout ñu teg ko ci bërëb yu fasantikoo ngir loolee ñuy laaj àddiya bu toll ci ñaari téeméer weer wu ne ngir mën a matal lu toll ci ñaari milliards ci suñuy koppar at mu ne. am 1000 francs bëgg lim lay denc doo ko ma joxee 1000 nga joxe 1000 milliards dinañ loo xamante ni bu kenn tawoon bu ko doo ko mën. waaye nag nag moom xam naa milliard. damaa ñëw jënd lu yaatu moom man moom noonu lay def moom man lu ma def par moom damay saa bu ma def rek damay dagg lu bëree bëri. waaw taa mujj laa Sëñ Tuubaa dañ ci dañ ci dañ ci xool moom. taalibi Sëñ Tuubaa yi nga xam ne xam nañ. 12000 mooy at nga dagg carte de membre 5000 muy 17000. mu ni mel kuréel gi lee am yéene dex mbënd mi waaye itam ay hôpital tey jii rek inauguré nañ ci ñaari hôpital jotoon naa pare. waaye ñu defar ay tali biir waaye assainissement it. waaye saa yu événement jotee. ne dañoo néew doole. liggéeyal Sëriñ Tuubaa boo xam ne. waaw loolu moom fa am na ci suñu xol sax dañ ci guy moom. gis seen liggéey. def ko foofu daal laa toll. dal nañ dugal lu jege fukki milliards ci dëkk bi. waaye taxul ba tey Touba ca jànkoonteel ba tey ak mbënd mi. bu sooxe lool. jëfal bu baax a baax Pape Banda Gaye ak Omar defal boobule reportage wàllu dem ak dikk bi daanaka euh, oto yi noonu Euh, bu fekkee nag bool euh, waaye itam mbedd yoo xam ne ci ay mbedd yoo xam ne kenn mënul njëg dal di cher lool euh, ñi nga xam ne ñooy taalibe yi nag daal di taamu njëg li itam xaw a gën a yemambaay seetaan leen boo ne boo ne sëñ Tuubaa laa gëm sëñ ci dellu sant ci yàlla bu sëriñ sëriñ Muntaxaa ndax dëkk bi kon yaakaar naa li nga xam ne moom la sëriñ lu mu bëgg nan ko ko defal lépp loo xam ne bañ na ko suñ njëriñ dong la nag suñ njëriñ kese la oto bi may dugg bi ma dugg bi may ñëw ma ne leen ku fa yóbbu fant wala ay m yaa ko teg sa bopp boo gënee sëñ Tuuba war a bàyyi te boo ñibbee nga naa Tuuba rek ñibbi naa dellu ci amul respecté nen ndigal yi ndax wax dëgg yàlla yombal nañu liggéey bi ndax baay Fall yi wax dëgg yàlla fi ne nii ñoom ñëpp ñoo monté comme ni police yi monté waaye nag wax dëgg yàlla tit ah mustaqim rek li nga xam ne moom mooy njëg yi dara nag dal muy euh, mbedd yoo xam ne euh, daanaka moom moo ko euh, gën a yàq ndax bi taw na nag ci ay taalibe yu ñëwoon ngir ma dal di yàqu yenn ci ay kër ndox mi dell loole nag yi daanaka bëri na foo xam ne nag waral ba taalibe yi daal di sàkku ci ñi nga xam ne ñoom ñoo ŋànk wàll tey waa Touba dañoo xëy yu métti yi nga xam ne nii taw na ko big si dem rasul ay quartier yu bëri nekkal Touba gi la. métti na trop métti na trop dem ba taw bi yokku na yokku goo xam ne mooy 500 wala 500. mbënd mi Touba di si si seen wàllu dem ak dikk nga xuus si ndox mu am ban wala rek nga wiiri wiiri yu métti si naaj bu tàng bi. yoon bi na. bari ay pax. waaw jaaral nii jaaral yàgg na ak jafe-jafe si wàllu raw moo di ne système bi ñu fi tëddal ay at lépp dem ba yàqu ma dañu ko fat amuñu ay canalisation. ah su tawaatee tey de dina doy war soo deful si ngir fekkee màggal Tuubaa gi ñu jóg di ak pexe ndax. seen Daouda Ndiaye moom moo ko euh, tey dafa daal di euh, baaxee bërëbu fajukaay bi nekk fii ci grande mosquée yu am solo lu ci mel ni ay euh, médicament jiko ak gants yoon loolee la docteur le professeur Daouda Ndiaye moom mooy infirmerie ba leen ci faju ñi nga xam ne ñoom ñoo ci lal ci équipement nga xam ne dal ndaxte kat jàmm moom sa dem nga xam nag bu fekkente ne mun la jox soins yi. boobu sant yàlla mënu kaa weesu te li ma fi gis fii nga xam defaat nañ tour bi.